lu bees a bees lu bees a bees ciseau d'or waaw waaw ciseau d'or nekk fii ci liberté 6 en face terrain liberté 6 bi di yëngu ci wàllu habillement ciseau d'or di haute couture nekk fii ci liberté 6 en face terrain liberté 6 bi di yëngu ci wàllu habillement maanaam ay xeetu sañse yu toj ay modèles yu amul fenn ay costume veste africaine om et femmes sur mesure yu rafet rawatina tissu di jóge fii ba Dubaï. waaw waaw. yow mi mais seetaan maa ngay déglu da nga bëgg a bëggal sa bopp ci wàllu sañse yu amul fenn tissu yu raar jóge fii ba Dubaï di daanu si fii ci Cissé d'or nga xam ne ay ndaw ko jiite nekk fii ci Sénégal di def ci wàllu ñëw lu am maana lu am solo lu rafet lool. mbaa ngay waajal sa mariage mbaa nga bëgg a bëggal soxna si ci kër gi mbaa nga bëgg a bëggal paa bi ak père bi ci kër gi dawal gaaw woote ci numéro téléphone yi ma lay jox 77 795 34 08 77 si 34 08 te ñu lay fekk ci sa biir kër daal di indaale ay tissus yu jóge ba Dubaï ak ay modèle nga tànn sa bu la neex ñu jëlee la mesure ñu ñawal la ko 24 heures sur 24 ñu daal la koy indilaa bi sa biir kër livré la ko li amul fenn ciseau d'or rek la am waaw waaw ciseau d'or xoolal mi yiy xeetu modèle yu amul fenn waaw waaw xoolal mi yiy xeetu modèle yu tëj ñoom nag bàyyiwuñ dara lépp loo xamante ni ci wàllu sañse nit ci wàllu habillement rawatina ci wàllu accessoire chaussures hommes et femmes lépp loo xamante ni day taaral nit ci wàllu dàll xoolal ma yiy dàll waaw waaw ma bi xeetu dàll xoolal ma bii xeetu dàll xoolal ma bii xeetu dàll fii ci Cisodor ay dàll yu amul fenn ay dàll classe waaw waaw xoolal ma yi xeetu modèle xoolal ma lii fii ci biir Cisodor xoolal ma lii fii ci biir César d'or haute et couture nekk fii ci Liberté 6 en face terrain Liberté 6 bi di yëngut ci wàllu couture lu am maanaa booy mën a ñaw macha allah foo tourné boo ne César d'or ñu ne macha allah Ibrahima Gueye xale bu mën a ñaw bi indi nag ay modèles yu bees tàq tàq tàq tàq tàq tàq. dañ lay fekk sa biir kër jëlal la mesure daal di lay proposé ak ay tissus yu nga xamante ni Dubaay lañ ko jëlee nga tànn sa bula neex ñu daal di lay ñawal. indil la ko ci vingt quatre heures livré la ko njëg yi yomb lool te mucc ayib xoolal ma lii. waa Cisodor xale bi ñëw génn fu nooy nepp ñu ne ko lu tax mu ne benn sëy dootu fi yëngooti ku fi sa sëy yëngu da ngaa jaarul Cisodor kooku mooy Ibrahima Guèye responsable bu Cisodor mbokk yi yow miy seetaan ba ngay déglu numéro téléphone 77 795 34 08 ñu ngi nekk fii ci Liberté 6 en face terrain Liberté bi. asalaamaaleykum waa Sénégal. maa ngi nuyu ñëpp man la Ibrahima Guèye responsable Sisodor di wax ni ñu ngi yëngu ci wàllu couture di yëngu ci lépp lu nit war a sañse lu rafet rek muy grand boubou muy mag muy xale bàyyiwuñu kenn ñu ngi ci ñëpp veste tout lépp loo xalaat ci wàllu couture rek ñu ngi ci di wax ni boutique baa ngi fii Liberté 6 en face terrain bi ku soxla fi ñëw wala dara nga woote ci numéro yooyu nga coordonné ñu ci numéro yooyu ci suuf